président Macky Sall musul am benn jëmmi jamono bu mas a toog ca xelam ak jëfam mooy liggéey ci keppaaru sénégalais yi ak jàppale leen ca xam ne responsabilité boobu ci moom la ko yàlla tax yërmaande ak dimbalante ak bàyyi xel ci askan wi lim ci liggéey guddi ak bëccëg kenn xamuñu toll preuve barki démb rek ci bëccëg bi mu yendu nga xam ne ba bi ñuy dog ci rajo la ko fekk di wax di wut ay solution pour mboolem jeunesse bi nga xam ne mooy jeunesse réew mi seetuñ ci ku bokk APR ak ku nekk ci coalition bi waaye kuy doomi réew mi te jàpp ne war na laa dimbale rek keroog wax na ci say wax loolu moom la ñuy xaar ci moom waaye loolu ci la nekk ñun nag duñ guddal tey parce kilifa yi fi wax daanaka li waroon wax ci président wax nañu ko ci taxawaayam ci jëflanteem ci dimbalanteem ak askan wi fedd li ko suñu kóllëre tey lay gën a yomb ci ñun bi nga xamee ne doomi soxna yi d'accord nañ ñun fii ci Kaolack ñun politiciens yi doon nañ ci wax waaye tey doomi soxna yi wàcc nañ ci géew ba ne mooy suñu candidat 2024 loolu wax naa bërki déemu ci mitin bi ñu doon def ma ne jarul listixaar jarul pettaaw mooy suñu candidat en 2024 loolu nag incha allah du ñu toog rek naan dañu toog ci kër yi di ko waxee déedéet loolu lu ñu gëm la te moom la ñuy suuxat moom la ñuy dundal incha allah pour yóbbu ko 2024 jaarale ko fañ ko jaarale woon ci élection yi passé ma li yàlla wërsëgalee mbooloo mi moo war a dalloo xel mbooloo mi parce ñi nga xam ne ñoo fàkkoon tey Saalum ci xam-xam ak ci nuuraaniya dama ne seen deret yi ñooy taw fii tey ambu mbooloo mi kon mbooloo mi amul lu war a tiit lépp li nga xam ne jàpp nañ na lu baax la rek buñ ci duggee incha allah dinañ ci am réussite lii ay daal mooy ñu fekk ñu wala ñu dégg ci loo xam ne ni safaan la waaye lépp lu baax luñ bëgg bu ñu amee pas-pas incha allah yàlla ak barke ñi ko ëmb incha allah dinañ ci yegg. bu soobee yàlla ñu ngi ni di jéem a jëflante après bu buñ paree ak kilifa yi ba ñeweeku ñu jéem a ak population commune bu Kaolack commune bu Kaolack suba inshallah allah buñ xëyee daañu day dalal mbolém région de Kaolack suba ci loolu la ñu nekk ci suba si ci ngoon ci inshallah allah daañu continuer ci commune bi inshallah ba jëm altine bu soobee yalla liko composé moy ceeb. ak sucre ak diw ak euh, sabo ak euh, yeneen ñi nga xam ne peut-être mën naa am ay jaami yàlla ñoo xam ne xam ne yegg nañ ci niveau boo xam ne waxuma ñoom waaye loo leen jox ñu jàlle la ko lu yàlla yombal suñu kanam suñu loxo ci koom-koom ñu dox leen handicapé yi itam maa ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm di ñaan yàlla yéen tamit yàlla dimbale leen yàlla sàmm leen ñu fekkee déwén yu bari maa ngi baalu ñëpp àq bàyyiwuma kenn di ñaan yàlla mu dimbale ñu yàlla dimbale ñëpp yàlla dimbale président Macky Sall ba li mu bëgg di ko def sumb ko muy sumb yu rëy yokkaat ci barki démb li muy sumb ci jeunesse réew mi yàlla may ko kattan ak koom bu mu ko mën a defee ndax dalam ak njariñam mooy suñu njariñ yàlla na yàlla dimbale ko yàlla may ko kattan yàlla niital ko ba gide ko foo xam ne bu fa jëmee Sénégal dana jëm ci kanam incha allah maa ngi jeexal sama kaddu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa salaamu alaykum